salaamaaleykum sénégalais maa ngi leen nuyu yéen ñëpp dama bëgg Macky Sall ak ay ministre am ak ay procureur am yi mandat de dépôt na ñu jëlee ji seen ndey yi wala seeni sœur wala seeni jabar wala seeni doom ngeen dugal leen ci kaso bi bi ngeen dugal jigéen ñooñu jigéenu patriote yi patriote yooyu ngeen fa dugal di leen manqué respect dem leen ngeen yóbbu fa seen ndey te ngeen toog nag di seetaan yóbbu leen ba pare dugal leen fa wala seen jabar yi ngeen yi tëddal matin midi seen biir kër wala seen doom après ngeen tok sétan liñ fay dund ngeen xol est-ce que bu nekkon ñom di ngeen leen fa duggal duggal fa ay doomu jàmbur waawe ah Sénégalu Macky Sall mo mel des fois am ñu may message nan ma kilifa nga bul waxee nenn yeen responsable responsabilité ngay occuper fofu xam nga dafa kawe bul yenn kilifa duggal ko kam dama leen tontu ben tontu dama leen ni je préfère kilifa buy saaga ndey buy saaga que kilifa buy jël nit di ko dóor bala fital mu dee parce que tu as tué quelqu'un sa vie est finie jeex na da éliminé ay saaga mosoo leen dégg ñun nit saaga nag kën nañ ko ba mu éliminé wu dans la vie je préfère kilifa buy wax wax bu dëgër que kilifa buy jël nit di ko privé sa liberté tëj ko kaso ci biir àdduna je préfère kilifa buy Saga, que kilifa boo xamante ne day jël nit di torturer ci ay kaso dem tëj ko ci ay conditions yu metti ñooñu kenn du leen wax dara te li ñu def moo gën a metti fop nit kuy wax wax wax bu dëgër ana Major Kandji sa bâtard fils de pute Major Kandji dama koy wax tey ngeen dégg ko kooku man su may wax sax dama naan c'est le conseiller du procureur ce faux procureur fàtte ngeen bi mu toogee naan Cheikh Bara Ndiaye ñooñu non genre nit yooyu ay Cheikh Bara Ndiaye non man bu ma nekkoon amoon yenn autorités yi ñooñu dootuñu wax sax ci Sénégal dégg dégg ngeen émission boobu ma ko doon wax ay temps te pourtant li mu wax am dem na nañu quelque temps ñu jàpp Cheikh Bara Ndiaye tëj ko ci kaso bi torturé ko fa tëj kaso rek torture la du xam fàttali ngeen du moo fi doon naan Ousmane Sonko wéy saa yu toogee di wax dañ ko war a régler justice moo am droit Sonko du xaman rataral ñu jàpp Sonko tëj ci kaso bi gis ngeen di Sonko daj ci kaso bi te moom yàlla da ko teel a daf ko doon wax fan yooyu rek mu am problème ak police ñu war ko jël si ci këram muy mu résister nit du dem woo procureur nee na après j'ai appelé le procureur parce que yow mën nga jot ci procureur c'est ton nami après ana sa problème bi sedd na kenn déggatu ko c'est ces connards là ñoo nekk Sénégal ak colonel Kayta xaw ma commissaire Kayta xaw ma paa boobu nga xamante buy toog di wax buy wax ak xol bi muy waxee sax un trafiquant de drogue koo xamante ni ci ay affaire drogue rek la doon nekk ku ni mu ko dàqee ñëpp xam nañ ko affaire drogue tax ñu dàq ci police bi dàq ko koo koy toog ci télé bi naan oui Ousmane Sonko on doit on doit on doit la c'est ces connards là ay Ahmed Khalifa Niass pas yu tekkiwul dara yoyu, des vauriens nit ñoy ñooy toog yow sa dom ray nit yow sa jabar la nu waroon jël yóbbu ko ci kaso bi jigen ñi nek. yow la su boba di nga ni Macky seug gëmmal dóor t'as même pas honte un vieux aigri Yalla tegaat la nat li ngay wax yeb sa dom doom ray nit tuer quelqu'un ñu bay la ay liberté provisoire nan ay tay noko tay ko ray rek da nga wara teud tay ñaka tay da nga wara teud même bu doon 1 an sax di nga teud après ñu door nak bay dedet parce que Macky Sall c'est un tueur ñooñ la soxlo ay commi ay ay xawma major kanje commissaire kayta ak ay Ahmed Khalifa Niass ay pap malik Ndour c'est faux crétin la ñoo ngeen def suñu ministre de la jeunesse taxaw naan dama dañ koy jëlee boo dee ñu doon sa jabar ah ok c'est ce genre là ñoo nekk ci nguur gi jël ay jigéen bàyyi leen ci kaso bi dem leen jël ci seen i jabar yéen ak seen i yaay ak seen i doom ngeen yóbbu leen ci kaso bi xool vous allez voir lan mooy kaso man je préfère parler dur que de torturer quelqu'un ou bien de tuer quelqu'un jamais de la vie ñaanuma ko yàlla kër àdduna sax sax digg digle ou bien yéen ñi calme nek ay kilifa c'est moy ñi tok naan ay tejeul ma diw rayal ma diw torturel ma diw c'est ça les gens qui sont ñoo ñooy kilifa yi pas ñi dire la vérité non Sénégal c'est de la honte li ça fait mal au cœur de bu mel Nan, naan ay cour suprême dossier son ko xam mook Mame Mbaye Niang yéen yéen a ñàkk fayda bala ngeen koy ki Barthélémy Diaz mom c'est un traître mo raw sax Judas du dossier ma nga fa balaa ngeen di àgg ci bu Sonko dem leen lijjanti dossier yooyu te bu Bart man fi ma nekkoon démb laa nekkan ah, man duma koo xamante ne damay sama xol day fees rek ma faroon tey suba ma jeng jamais de la vie ñi ma xamul nag peut-être mën na juger mais man ñi ma xam xam na ne nekk ma sax ci ay caaxaan je suis quelqu'un de comme sa ci xàq lan ma yaree Barthélémy Dias maa waxoon ñooñu pick la ñu indi woon fekk ko ci méeréem mu def légitime défense comme bu fa rayoon sept personnes sax Barthélemy Dias il a raison foofu fa ma newoon démb laa nekkaat tey dossier boobu dañ ko waroon vidé man may xeexee nit politique ci terrain bi la Sonko xëjul ci ñoom ci terrain bi man du ma duut ay dëgg sarax dañ ko war a jàpp ak jugé Barthélemy Dias dossier boobu kenn laalu ko bu ko kenn waru ko jege parce que am na dossier yu ko jiitu fop balaa ngeen ni benn benn Cour suprême nag yéen da ngeen a da ngeen war a régulariser lépp teg lépp ci axe te dossier boobu man dama gëmul sax dina jóg nañ dem après ñu ñëw ci ay di di ay bataar yoo xamante ni ñoo fi nekkoon naan ay noo ba pare bu ñu waxee jigéen ñi ay féministes donc féministes yi ñoom dañuy xaar góor bu am ak sa gel problème dóor ko ñu ni waa góor ñi li ñuy def jigéen ñi wala jëkkër ak jabar bu am problème ñu ni jëkkër ak jabar ah loolay féministe jigéen bu fi génnati yéen sénégalais am leen fulla naan affaire féministe di kaas ci ay affaire yu ñàkk fayda ay affaire topp kaa xamooy ñàkk fayda yi vous devez les casser leur gueule ils retournent chez eux ces femmes là de merde là ab jigéen menteur a fi nekkoon yéen ñëpp ngeen génn yor seen làmmiñ ñu jël seen i moroom jigéen yoo xamante ni reyuñu nit jaayuñu drogue yàquñu biir sàccuñu alalu nit triande defuñ dara nit lu dul wax seen ab yi ñu tëj leen ngeen toog yéen ñëpp seen bras même pour des politiques vous devez vous lever association des femmes du Sénégal vous pouvez vous heure tout le monde Il peut a avec ay féministes défendre les gens ngeen vous défendre du fayda ay copain ma ko dóor bi nuyu ay non da nga non ci auto la nekkoon nak muy wax yu ñak fayda ngeen oui euh, les femmes on doit aller on doit aller si vous ne les femmes on doit aller ba jigéen bu fi génnati taxaw ci plateau nan lee femmes on doit on doit aller vous devez leur casser leur gueule ngeen baal ma nag yenn jigéen ñi am na ay jigéen ñu diiñ mais ñiy wër plateau yi ci ñàkk fayda yi te li ëpp fu la nekk nii seen i moromu naataan goo jigéen ñu leen di di leen tëj ndax ay affaire politique ngeen toog yéen ñëpp. billaahi wallaahi taalaahi laa wax jigéen jigéen xëjul ci benn population jigéen xëjul ci góor ngeen jigéen ñi bu ngeen manqué woon région yëpp. mbo association jigéen yëpp takku génn autorisation ñàkk autorisation ngeen génn ci mbedd yi taxaw ni da ngeen bëgg jigéen ñi ñu may leen jàmm billaahi kenn dootu leen noggatu personne ñëpp leen yi ko jox cër te jigéen yi suñu yaay bu du woon man mii di wax bu du woon jigéen du ma fi toog tey di wax kon dañ leen war a jox cër te yéen a koy xeexal seen bopp bala ma da ci ñak fayda rek nga leen gis ñu wi ku ne genn taxaw wi wi wi sa sa sa ma ngi wax na major kanji colonel Kayta xawm commissaire Kayta drok drok sax la commissaire Kayta drok major kanji le fola là qui croit il connaît tout ñoo ñep doon wax ay pap malik Ndour ak ay mustapha jaxade sa batar la momit don nan dan wara ray mais gis ngeen ba ñu jiyee Sonko ba léegi japp ko diko ko totti rek def yoy sen Sonko est ce que nga ko ñoy wax. samedi c'est des missionnaires des batar mais yeen ñep c'est que bu ngeen yakare ni yii dang kay faté day yomb torop dekk waxon na leen dekk bokay tabax da ngay xol ci nga xamante ñoy toxique yi poson yi ñoy ngay commencer yar leen bu population bi di gis ray nit. kenn waru ko def Sénégal torturer nit kenn waru ko def Sénégal tëj nit ci ay maalifolo yu ñàkk fayda yi kenn waru ko def Sénégal fii Émirats arabes nii laa leen wax wax naa leen ko waxaati leen ko ci justice bi laa nekk fii même nit bu amee nit problème da ngay gis man des fois damay toog sax naan allahu akbar di mais police dinañu arranger négocier seen diggante nax naxtaan def la tout ba xool problème bi nan lañ ko mën a régler te du àgg sax ci ay procureur boo àggee ci procureur procureur dina naxtaan le tout kaso mooy li mujj mujj nga xamante ni lii dafa sës sës sës kenn mun ci dara ku amul këyit sax dina naxtaan ak yow ndax am na ku la mën a garanti ndax am na ku fi mën a bàyyi passeport am lu ne dinañ ko wut pour bañ la téye pour wut solution fii émirat wala buñ la tëjoon kaso benn fan le deux jours balaa mu koy mat dina dinañu woo say mbokk def le tout ba xool nan la ñu mën a régler régler arranger ba génnee la. gars yi may am foofu tey quoi sama.